man personnellement lépp lu ma mën ci ñaan lépp lu ma mën ci ñaan le président Macky Sall pour mu bàyyi le président Ousmane Sonko mu ñibbi këram man dama koy def tey bu ma toogoon am Macky Sall. Mhm. mu ne ma loo bëgg dama ko naan Ousmane Sonko ne dem ñibbi këram. parce que ñi nekk ci télé bi naan dafa war a grève de la fin wax dafa war a def nii dafa war a def di non seulement rendre ñu ko service waaye bëgguñu ko man su boo génnee cadre politique. Ousmane la personne de Ousmane Sonko moo ma intéressé parce que mën naa dem toog ñu lekk suñu ñànk tàng mhm. naan suñu ataaye toog waxtaan en tant que frère donc li li ko dal dama koy massawu waaye di ñaan yàlla mi nga xam ne dara teew ko mu génne ko li mu gën a gaaw delloo ko sa njabootam le Sénégal a besoin Sonko. Mhm. njabootam a besoin de Ousmane Sonko. nattu man je pense que nattu la te nattu mënta ñàkk yàlla moo ko teg te ñuy wax naan day grève de la faim day xarox ñoo ñëpp waxuñu dëkk gis nga. Ousmane Sonko ay conviction religieuse am. Mhm. gëm yàllam ak maanute bi ma xam ci moom mayu ko muy xaru mayu ko muy def leneen maintenant nañu bàyyi manipulation bi di jéem a wax loo xam ne ne dara amu ci li am solo ba am solo xam nga lan la nañu bàyyi Ousmane Sonko bi ñu war a mën bi ñu bëgg dugal ci xeex ci guerre bi yëf tàngee ñoom ñëpp dañoo daw toog seen kër. Mhm. nekk seen wattu njaboot war nekk seen. merci wattu jeeg di ñaan le président Macky Sall nekk le président Ousmane Sonko de lépp loo xam ne yoon pouvoir na ko la justice may na ko mu delloo